Téléspectateurs de la 7TV, ravi encore une fois de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire Avocat, le droit à votre service émission bi nga xam ne moom mooy traiter les questions juridiques les cas juridiques mais aussi l'actualité juridique tey sax ci loolu la ñuy ñëwaat vraiment l'actualité juridique ñëwaat ci li nga xam ne mooy l'affaire Sweet Beauty affaire bi nga xam ne moom moo tenir en haleine les Sénégalais depuis plus de deux ans mais nag tey dañu ñëw vraiment ci exécution parce que gis nañ ne depuis ba ñu defee li nga xam mooy décision bi condamné ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko gisuñu ba tey moom une exécution donc de la décision donc tey ci loolu la ñuy taxaw waxtaane ci donc wax dugg ci en fond waxtaane ci ci wàllum droit ba tey lu tax amul li nga xam ne mooy exécution ñu ci dalal nag màcc na bu baax a baax ci aspect bi muy professeur Ibrahima Ndiaye nekk juriste enseignant mais aussi consultant tey moom la dalal bëgg waxtaan ak ci li nga xam ne mooy thématique l'exécution d'une décision de justice professeur ñu ngi lay nuyu dalal encore une fois. maa ngi lay fay bu baax Amadou di kontaan toujours di ñëw ci seen euh, télé. parce que voilà quoi comme ni leen nit ñi bàkkee da ngeen tëdd njaaxaanaay. ba noppi vraiment tout le monde a sa place euh, ci seen télé bi ba noppi tout le monde euh, vraiment s'y retrouve quoi c'est un très grand plaisir de vous retrouver. merci beaucoup professeur yow tamit da nga tëddee loolu la loolu donc ñu ngi lay nuyu bu baax a baax dalal la dégg nga li nga xam ne moom laa moom laa ci à l'entame de propos ci li nga xam ne moom la ñu bëgg waxtaanee maanaam exécution d'une décision de justice nga xam ne dafa am benn rapport ak l'affaire Sweet Beauté parce que depuis ba ñu condamné ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ba tey gisuñu exécution professeur lu ñuy xaar wala dafa am yaa yoo xam ne moom moo war a am balaa ñuy def li nga xam mooy l'exécution de la de la condamnation waaw merci beaucoup euh, c'est une question boo xamante ne ñu ngi koy laajte ñu ngi ciy wax ñu bare bare bari ñu ngi ciy wax mais ñi nga xamante ne ñoo ko seq il faut que ñu delloo leen cër bi nga xamante ne aussi moom la ñu moom muy wàllu justice ak aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo wër euh, <coughs> le condamné muy Ousmane euh, di ay avocam am ak ses conseils ñëpp quoi Euh, léegi nag euh, dafa doon cas bu nga xamante ne mu ngi fi door am parce que mu suñu am quand kaaw kawu max bu nga xamante ne coow li bare na nii nit ñi tudde nañu ko nii waxee nañu ko nii euh, li ko jur aussi mooy que dafa don ku nga xamante ne politicien la bu toll ci jamonoom. parce que politicien bu tollee ci jamonoom dafay am gannaaw dafay am ay militant dafay am ay nit ñu ko sopp bon malgré nag. loolu noonu yëpp constituer une base affective loolu yàqalul droit mu def liggéeyam tribunaux yi moom dañuy def seen liggéey comme si bu nekkoon beneen nit quoi léegi euh, jugement génn na condamnation am na situation spécifique bi aussi mooy que contumax la mooy que atte bi ñu ko atte daan ko tribunal moom mënatu cee dellu si donc du mun def appel du mun def dara léegi nag dañu encadrer situation boobu boo déggee tekk bi nit ñi def c'est parce que li nga xamante ne moom lañ ko condamné déli la déli mooy euh, infraction mbaa ci wolof loo xamante ne dañ koy aaye nga def ko waaye boo ko defee mënuñ la cee tëj lu ëpp fukki at donc tëj bi ëpp bi gën a yàgg fukki at lay ne yées ko ak lu ko yées loolu moom la ñu wooyee délit mm-hmm. léegi bu fekkente ne nag dañu la cee tëj fekk yow demuloo woon ci àtte bi su boobaa dañuy jàpp ne yow dañu la àtte sa gannaaw ñu jàpp ne donc yow euh, comme am moom contumax la parce que dañ ko dugaloon moom dañ ko toppoon ci wàllu crime bi ñu ko toppee ci wàllu crime comme bi ñu ñëwee ci chambre criminale bi c'est une juridiction euh, boo xamante ne dafa am une compétence générale donc am na droit xool ne lii nii kat man mun naa ko bañ a àtte ci wàllu crime waaye mun naa ko àtte ci délit mooy principe kii pour le plus peut le moins donc moom la ñu appliqué ñu topp ko ci loo xamante ne délit la léegi nag bu nekkee délit dafa am lu tubaab di wooyee euh, période bu nga xamante ne moom mooy prescription prescription ci wolof mooy diir boo xamante ne may nañu la ko boo deful li nga waroon a def dootoo ko mën a def mbaa boo jëlul li nga xamante ne moom lañ la jagleel too ko mën a jël léegi prescription boobu noonu ci li ñu ko daaneele cinq la donc moom fii ba cinq ans fii ba cinq ans am na droit mu xëy suba teel jóge këram ñëw tribinal neleen leen bon xalaat naa xalaataat nangu naa li ngeen ma daan muy deux ans de prison yi su boobaa dafay dem mu dem tëdd ko mais délai de prescription bi donc c'est cinq ans léegi bu fekkente ne aussi <coughs> defu ko ci période boobu wanewul ne aussi contesté na bëgg nañu defaraat procès bi su boobaa dañuy jàpp ne daan biñ ko daan dafay définitive mooy maanaam daan bi àtte biñ ko àtte moom nangu nañu ne àtte boobu am na loolu la ñuy jàpp su boobaa dañuy jàpp ne daaneel nañ ko deux ans lan moo ci topp léegi mooy ndax dañu koy jëli yóbbu ko kaso ou bien duñu ko jëli yóbbu ko kaso loolu moom à tout moment mën na am parce que atte bu xasee ba am ba ñu ne diw tëj nañu ko dafa war a dem kaso kaso mooy place léegi lan moo tax demul kaso loolu moom mooy laaj bi mais li tax laaj bi am solo aussi mooy que dafa nekkul comme atte yoo xamante ne en général moom la ñuy def ci biir réew mi ñu du ko gis dafa doon cas bu nga xamante ne dafa spécifique parce que dafa am yu bari lu ci laxasu loo xamante ne procédure la te loolu techniciens yi ko wër ñoom ñoo ko gën a xam. na xam que damay ñëwaat am ba ci aspect bi nga doon wax un peu parce que bu ñu la jugé par mais nag loolu tam andiwaat na beneen aspect bu xaw a doy waat considéré comme un prisonnier xam fi nga nekk mun ñu la bàyyi nga nekk ci ci sa liberté c'est-à-dire bu ñu la considéré comme prisonnier dañoo jàpp ne sa place ca prison ci prison bi la donc lu tax boobu ba tey aussi ñuy xaar li mel parce que tamit situation bu inédit la ba tey ñu considéré la comme un prisonnier te gisuñu la ci li nga xam ne mooy prisonnier mais ñu ngi la bàyyi sa sa biir kër waaw peut-être mun na nekk ci suñu suñu tradition suñuy pratique mais euh, nit dinañu koy tëj prison ci këram nekkul pour teg nit prison c'est pas uniquement prison obligatoirement nga ko war a tëj mais loolu boo demoon tey par exemple euh, ay itali ak yeneen dëkk yi da ngay dégg ñuy tuddee nit par exemple arrestato domiciliare mooy arrestation domiciliaire yooyu noonu yëpp war na mën a ne léegi nag ce n'était pas en réalité quelque chose bu nga xamante ne prévoir oon nañu ko ci dossier bii nii mais lii nga xamante ne moom la Ousmane nekkee weesuwul loolu weesuwul loolu parce que le principe mooy la liberté de circulation de la personne quand tu es dans un pays bu fekkente ne da nga nekk ci sa réew kenn amul droit mu ne la fii nga war a teg sa tànk fii waroo fi teg sa tànk lu dul yoon yoon rek moom moo la mun a defal interdiction de séjour léegi lii nga xamante ne moom ci situation bi la nekk mooy que ñu barricadé benn jël benn nit kese muy son euh, chargé de protocole <coughs> kookoo mun di dugg di génn di dem di ñëw ñeneen ñi mënuñu accéder ci moom moom ci boppam mënul a génn ba sauf extraordinaire afin dégguma information bi julli na est-ce que julli ji tabaski amu leen ci certitude parce que moi j'ai pas la certitude que dem na julli ji euh, donc tu vois nit bu demee ba nga xamante ne perdre na liberté yooyu rek ça dire que yoon téye na ko ça di ko yonte yi na ko fan lañ ko dugal nag léegi moom mooy moom mooy wax ci mais yonte yi na ko quand mais nag situation comme ba tey dama lay laaj si si c'est un peu inédit parce que comme ni nga ko waxee situation la boo xam mën nañ ko trouver en Europe mën nañ ko trouver feneen mais est au Sénégal ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci logique yooyu est-ce que Sénégal xam nañ façon boobu noonu mais aussi est-ce aussi tam bu ñu koy def est-ce que waruñu ko tënk ci li xam ne mooy une décision de justice c'est-à-dire est bi balaa ñuy encercler la maison d'une personne aussi waaw mais c'est un peu plus profond que sax parce que le fait que ñu wax la ne toogal sa kër kese mën na bañ a doon lu nga xamante ne c'est lié au jugement mun na doon leneen loo xamante ne ñu ngi koy càmbar ñu ngi koy seet te amaguñu lu doy ci information ba war a mun a génne benn conclusion boo xamante ne moom mooy doon position justice mbaa ay enquêteur loolu moom ala kuliyal day doon lu nga xamante ne wax ci hasard la da ngay wu parce que nekkuloo dans le secret de l'enquête yow ci sa bopp da nga war a respecter euh, li nga xamante ne noonu la justice yi doxee donc li ngay mën a wax rek moom mooy avec des pincettes ngay téye affaire bi dire que si cela a été fait c'est justement parce que il y des non di te non di yooyu tant que diiruñu leen yow doo mën a xam lu mu doon loolu moom moo tax on est obligé donc de faire très attention par rapport à cela mais s'il s'était agi tout simplement bu fekkonte ne euh, yoon bi mu dem la ñu tëj ko ci kese kese kese je ne pense pas yaakaaruma ne doon na compliqué ni mu compliqué de manière générale parce que dañoo nekk ci cas boo xam ne cas bu personnel la comme ni ko waxee cas bu xaw a boo xam ne tam vraiment ñu ngi koy doog a gis de manière générale bu ñu amee une décision de justice boo xam ne condamnation la matière en matière ban délai lay jël d'habitude waaw bon euh, ça dépend ci condamnation bi ndax ki ñu condamné il est disponible c'est-à-dire que donc la disponibilité du condamné ou bien c'est un condamné qui est recherché ou bien dafa doon condamné bu nga xamante ne peut-être euh, voilà en tout cas mënuñu ko jël nii nii nii nii nii yóbbu mais bu fekkente ne yow da nga comparaître physiquement devant le tribunal bu ñu dóoree marto bi ne tu es à telle peine directement ngay jóge tribunal nga dem prison loolu moom mooy exécution bu gën a direct bi bu fekkente ne dañu ko kondaane dañ la condamné tribunal te yow nekkuloo ci biir tribunal bi donc ñi nga xamante ne ñoom ñooy police ak gendarmerie dañuy am mission ñu jëli la fa nga ne yóbbu la nga dem biir prison léegi nag au Sénégal aussi am na benn euh, évolution bu nga xamante ne réflexion bi ñu ngi ko doon pousser d'ailleurs pour aérer un tout petit peu l'univers carcéral mooy prison yi nga xamante ne euh, ni mu feese dem nañu ba andi ay bracelet électronique contrôle judiciaire aussi ni nga koy déggee léegi daawoo ko déggee bu njëkk noonu parce que mandat de dépôt yi def doon bari léegi aussi même arrestation domiciliaire boobu noonu envisagé nañu ko ci biir réforme yi danga xamante ne nit ki bu defee loo xamante ne euh, war na mun a tax ñu tënk ko këram mu des fa du xatal prison yi te du tere ñu restreindre sa liberté ou bien ñu priver ko de liberté ñu mun ko def Sénégal dafa nekk ci euh, liggéey boobu noonu gis nga ne bu yàggul ñu ngi commencé def ay bracelet électronique ak tout cela yooyu yëpp dafa bokk ci pour ñu désengorger le milieu carcérale mais nag dafa am leneen loo xamante ne aussi il faut que ñu téye ko ñun euh, ci wàllu droit dañuy wax ne prison du fees loolu la ñuy jàngale prison du fees boo ko déggee nekkul ne dañu ne prison bi mille personnes la mun a jël bu ci mille personnes duggee fees na non non non dañ bëgg a wax nit ñi ne jàpp ni fekk kiy def li ñuy aaye mu ngi koy def ki koy jàpp mu ngi koy wër te bu ko wëree bu ko wëree ba gis ko doxee jàpp parce que ñu wax nit ñi ne ah prison yi fees na kat kon mënatuñoo yóbbu kenn prison gars yi jóg ne ah comme prison yi fees na duñ yóbbu kenn prison bàyyil ma dem def li ma bëggoon a def prison du fees mooy que quelque que soit ci circonstance boo mun ci ne boo defee li nga xamante ne waruloo ko def dinañu def li ñu war a def pour yóbbu la fi ñu la war a yóbbu fi nga wér donc dafa am benn benn benn benn benn dissuasion boo xam ne ñu ngi ko ci ñu ngi ko ci teg sur la sur les personnes pour ñu moytu li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy def dina ñëwaat un peu si si vraiment cas bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy traité parce qu'il faudra ñu traité ko ñu ngi wax aussi de rédaction aussi de la de la décision il faut ñu rédiger aussi la la la décision pour ñu mën ko pour que ñu mën ko exécuter pour diggaate aussi ministre mi ngi naan à tout à moment donc kon est-ce que xaaruñu li nga xam ne mooy rédaction wu décision bi balaa ñu mën a exécuter l'affaire aussi. mais bien sûr xam nga rédaction décision de justice ni mu mën a jëlee benn fan noonu la mën a jëlee temps bu yàgg parce que procédure bi li mu laaj. ak les minutes yi nga xamante ne moom la ñu respecté ci li ñu def yëpp ci procédure bi loolu yëpp dafa war a feeñ ci ki nga xamante ne musula xam li xew te ñu jox ko décision de justice bi tey bu fekkente ne yow da nga wàcc France ngay jàng nekk étudiant dinañ la jox benn décision de justice bu nga xamante ne 1900 la ñu ko rendre ou bien 1914. la ñu ko rendre comme par exemple euh, décision euh, bu cour de cassation française euh, de bu 1914 bi nga xamante ne moom moo rendre arrêt Manigo bi 1914 la ñu ko rendre yow nekkuloo fa woon donc bu ñu la koy bindal dañu lay bindal lépp da nga xamante ne yow ma fa nekkul woon boo ko liiree day mel ni yaa nga fa woon donc xam nga lépp loolu moom moo tax ki koy bind euh, dafa am benn formation sax yoo xamante ne dañ leen koy defal uniquement ci rédaction boobu noonu ay légiste ay légisticien lañ leen di wooye c'est-à-dire que ay loi bu ñu koy bind ñu mel noonu ñoom ñoo koy bind bu ñu lay defal formation aussi nga war a nekk par exemple un greffier pour mun a def rédaction yooyu noonu aussi dañu lay defal technique boobu noonu nga xamante ne noonu ko war a bindee pourquoi parce que décision bi boo ci waree def point final defuloo ci point final enchaîner ak beneen phrase mun na changer sens première phrase bi ce qui veut dire donc que ponctuation yi sax daf ci am solo euh, conjugaison bi ngay utiliser daf ci am solo moo boo utiliser dafa am situa signification bu nga xamante ne lexiku euh, décision bi loolu lay tekki donc daf doon lu nga xamante ne nekkul ku làkk français bu neex rek mën ngaa bind décision de justice léegi nag voilà daf non seulement dafa war a leer mais amul limite mun nga def décision par exemple décision bi ma gis nii bi ma envoyé je crois ça fait 35 pages cinq pages boo ko waree lire déjà ak ak terme juridique yi mu joxe et tout ça dafay compliqué looloo tax délai pour génnee décision de justice kooku fixé wuñu ko parce que mu ngi dépendre ci personnel bi nga xamante ne moom mooy liggéey yàgg ngeen ma dégg ci rajo yi ak télé yi may casse toujours le nombre de magistrats yi nekk Sénégal dafa tuuti proposer état bi mu def ay recrutement massif lu mais oui les greffiers cest à c'est toute la chaîne ba noppi jël ay magistrats aussi yoo xamante ne dañu waroon a nekk ci justice bi di liggéey nga jël leen yóbbu leen ci ay ay euh, comment dirais-je euh, ay ministère ñu nekk fa ay secrétaire général sama xel daf ci dem léegi parce que dama laajte sama benn xarit léegi voilà <laughs> mam Gour Diouf c'est le secrétaire général donc du ministère de la femme de l'enfance et tout cela ce sont des magistrats en réalité ñooñu benn pays chevronné ñooñu la ñu jël ñu yóbbu leen ci euh, ministères yi tey ji nii je n'ai rien contre eux mais même bu fekkente ne dañ leen di yokkal xaalis pour andi leen ñu duggaat ci ci ci ci ci tribunal bi duggaat ci liggéey bi léegi ces secrétaires généraux la yi nekk ci ministère bi ñu def leen ay administratif ñu continuer liggéey bi plus recrutement bu bees ah mais dina taneel affaire bi léegi nag si tu n'as pas le personnel qu'il faut si aussi les décisions s'amoncellent da ngay dugg ci benn cabinet Euh, premier cabinet boo fa duggee par exemple juge d'instruction bi dafay xëy mu tim 400 dossiers te dossier bi muy tiim dafay doon dossier bu nga xamante ne dafa dafa dafa dafay xañ nit ki ëllëgam mbaam mu mun ko libéré bu la leeree na yow signature bi nga signé moom mooy wax nit ki demal nga fanaani feneen fu dul sa kër muy prison ça veut dire que signature boobu balaa nga koy signé liggéey bu set nga fa war a def looloo tax ñoom dañuy jël seen temps ñi comprendrewul politiciens yi surtout dañuy galvauder affaire boobu noonu waaye le temps de la justice n'est pas le temps des tel parce que justice boo si nekkee lépp looy def dafa am conséquence te ni ma koy waxee étudiants yi sax d'ailleurs dafa am leneen lu ci ëpp solo lu ci ne gis nga atte kenn rek moo ko yelloo mu yàlla léegi bu ñu la waxee ne la Amadou taal yow yaay atte diw diw moom mu taxaw jàkkaarloo ak yow mu ñibbi këram mbaa mu dem prison ci yow la dépendre yow bu fekkente ne nit nga war ngaa xam te ne liggéey bii ngay liggéey nii di ko atte fii yàlla borom atte dina ko attewaat donc da ngay fexe ba nga xamante ne yow liggéey bi ngay liggéey boo ko defee boo rendre sa décision boo demee sa kër boo tëddee di nga naaw mais mënuloo pour des raisons x ou y nga parax parax benn dossier nga dem e je te le dis je te le répète ces magistrats là ils sont indépendants c'est des gens yu nga xamante ne ils font leur travail avec toute la conscience que cela requiert léegi nag dalay arranger décision bi ñu joxe mbaa mu bañ la arranger nga apprécier leen mbaa nga bañ leen apprécier sur cette base mais c' est des gens yoo xamante ne c' est des xam ne mooy cas comme ni ko waxee décision judiciaire mën nañ comprendre mën na jël na jël temps mais cas bi ni mel c' est boo xam ne cas spécial la cas bu spécifique tey jii nii nii nii est ce que mun ñu jàpp ne vraiment lu tax ñu yéexal li nga xam ne mooy rédaction beeg yeneen ak yeneen ak yeneen est ce que amuñu yenn appréhension yoo xam ne ñu ngi ko ciy xalaat c' est à est ce que jàpp ñu ne tey jii bu rédaction bi tombé il faudra une exécution et l'exécution bi mën na indi des problèmes aussi ci li nga xam ne mooy réew mi parce que gis nañu à chaque fois quand on a des y a yoo xam ne que situation yu compliqué lay doon yoo xam ne mën na vraiment compromettre la paix et la stabilité sociale du pays. waaw j'ai compris li ngay wax mais ñiy wax loolu c'est parce que dañu xamul lan mooy doole réew ñiy wax ne jàpp benn nit par exemple jàpp Ousmane ko yóbbu ko kaso par exemple mun naa taal réew mi et tout loolu ci wax la. ci làmmeñ nga koy wax mais dans la réalité mënul ne xam nga lu tax euh, man dama def benn théorie bu nga xamante ne j'ai eu des retours waxtaan naa ci ak ay nit dama théoriser euh, l'unité d'action sécuritaire mais boobu bi ñu koy wax waxuma ko woon waxuñu ko woon ci waxu benn nit bu ñu jàpp bu ñu jàppul boobu maa ngi koy wax ci wàllu insécurité bi am ci réew mi ma ne leen insécurité bi mën na arrêter il suffit que ñiy jiite réew mi décider ko parce que ñoom ñëpp kenn ku ci nekk fa nga dëkk la ko wër agresseur amu fa pourquoi agresseur amu fa c'est parce que dañu ñàkk ñoom fi ñu féete bàyyi population bi fi mu féete loolu moom moo tax boo paanee carburant ci kaw euh, VDN prolongé bi ñu mun la fa fekk poignardé na tey jii nii bu fekkoon te ne dañu def une unité d'action sécuritaire mooy lan les casquettes laa dañ leen di mettre de côté kii militaire la kii gendarme la kii policier la loolu dañ koy dindi de côté xam lan la wax dañu naan suba sécurité la ñu bëgg ci réew mi dina fi am donc on prend tous les hommes yi nga xamante ne ci sécurité la ñuy yëngatu ñu génn avec tout le matériel bi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee ñu dugg ci réew mi ci biir dëkk bi parce que Dakar essentiellement c'est la moom mooy problème bi bu ñu taxawee fa ñu war a taxaw yow boo génnee yorewuloo fetal comme ñoom yorewoo dara lu dul xeer ak benn bouteille bu am essence ñu koy wooyee cocktail molotov et tout la boo gisee ñi nga jàkkaar lool da ngay delluwaat c'est parce que dañuy ah, daje dañuy mettre d'ailleurs Euh, à la limite euh, yi dañ leen di mettre dans des conditions extrêmement difficiles parce que li ñu leen di jàngal ci école de ci seen école yi moom la ñuy mettre euh, moom la ñuy jéem a mettre en pratique la proportionnalité des moyens utilisé ak nangam ak nang yooyu noonu mun nañ faa bañ a yegg bu fekkente ne yow tey jii nii da ne da jël une décision boo xamante ne population bi mun naa génn dara terewu la nga jël deux jours ou trois jours tu sors ton armée ñu nekk ci ci ci artère yëpp nga génne sa euh, sa gendarmerie ñu topp ci ceinture leneen li ci des nga jël police bàyyi dans le centre ville di nga def li ngay def ba pare te coow du jib léegi nag aussi xam nga dafa am loo xamante ne kenn mënu koo daw mooy violence violence violence mën nga ko moytu fekk nga yaa ngi jàkkaarloo ku koy moytu mais ki nga xamante ne moytuwul violence lenn rek nga mën a def pour mu arrêter violence bi mooy violence violence violence moo koy arrêter la raison mooy que li tax nit ñi di armé wu dans les pays pays di armé wu par exemple di def ay armement bu bees bu nekk ñu jënd ko njëkkante ainsi de suite c'est parce que xam nañu ne yow boo amee benn capacité de violence c'est-à-dire capacité de nuisance kenn du dal sa kaw mais quand tu laisses les gens faire ce qu'ils yow nga ñëw créer sa benn commerce daw nga rey sa bopp Europe pendant 15 ans 20 ans nga ñëw def sa benn investissement ñun amuñu culture amuñu culture assurance amuñu culture assurance en France la nga gis ñu toj fa yëpp assurance yi dañ koy fay la preuve assurance yi ñu ngi nekk di di di di réunir mais fii nii jeune bi nga xamante ne dafa leb mbaa femme bi nga xamante ne dafa dajale fu nekk mu dugg fa ba am benn business sam bu tuuti commencé di jaay ay téléphone kii di jaay leneen ak leneen ay samba booy jóge fële ñëw tas ko taal ko jël loolu noonu yóbbu ko mieux moom ñu violé ko mais xam nga ne loolu nekkul politique saay loolu jotewul dara ak affaire Ousmane Sonko ñiy wax affaire Ousmane Sonko ñooñu politique la ñuy def bu leen laal Ousmane Sonko nangam nangam Ousmane Sonko mais ci biir loolu ci la ay ñeneen ñoo xamante ne yoonu Ousmane Sonko nekku ci nekkul ci ñoom euh, boo jëloon seen carte tey jii nii du ñu doon ñoo sax ñoo xamante ne dañuy voté la preuve am na ñoo xamante ne nekkuñ des Sénégalais ñu jàpp leen ci ce sont ces gens maintenant ñooy andi violence bi violence bi contre ñu nga koy dressé nit bu la jaayee violence dañ koy jaay violence bu ëpp doole violence boobu mu taw mu dellu gannaaw loolu moom mooy mun a arrêter ces gens-là nga xamante ne banditisme la ñu surtout l'État quand la violence légitime. oui la violence <laughs> légitime mën nañu jàpp loolu aussi. oui la violence légitime signifie tout simplement que nul ne peut justice soi-même mënuloo nit saaga rek nga toj bat bi ou bien nga je ne sais pas quoi nit bu la saaga da nga koy yóbbu euh, ci yoon. nit bu fekkente ne euh, daf la def lu mu def doo wax ne maa koy fajal sama bopp bu fekkente ne am na violence bu ñu war a utiliser par la privation de liberté ak leneen ak leneen ba ci guerre état moom moo am monopole violence boobu mais ci kaw terrain bi bu fekkente ne ay nit dañu jóge fële di def banditisme ñëw di def loolu yow nga nekk naan leen damay def non non non non non ki nga xamante ne dafa andi caay-caay da nga koy andil caay-caay gu ëpp caay-caay boobu noonu pour mun a topp loolu moom mooy doon solution loolu nga wax vraiment am na am na solo parce que comme ni nga ko waxee ay du yem ci bopp borom te vraiment war nañu non y a beaucoup de situation yoo xam ne anarchie boo xam ne waruñu ko waruñu ko seetaan mais dinañ ñëwaat un peu je pense que ni temps bi léegi mu léegi mu xooj na un peu ci décision bi un peu ci continuance spatiale ki yaa ngi koy wax ne nga décision la boo xam ne tàmmuñu di ko gis au Sénégal mais bu ñu ñëwee exactement ci jugement bi contumace lan la ci exactement la loi wax. waaw euh, jugement contumace moom mooy ki nga xamante ne déjà bi ñu koy jugé dañu ko woo moom xam na ne dañ ko war a àtte tel jour ñëwul mbaa daw na ñu ngi koy wër gisuñu ko du ne nag dañu laa war a dem jëli. non non non no convocation dañ laa war a juger ak affaire noonu non soxlaa guñu la dañu naan la rek yow war nañ laa juger am nga audience tel jour yeneen dossiers yi fi nekk aussi bu fekkente ne nekkuloo prison ñu war la fa jële andi la tribunal dañu lay wax ne la war nañu la juger tel jour mun nga ñu andil la sa convocation nga bañ ko jël mbaa nga xotti ko sax ne man de toutes les façons doo du ma ñëw mun nga aussi ñu indi la sa convocation nga jël ko di ñëw ba ci ba jege si tribunal bi sa fit mayu la nga jàdd bañ a dem tribunal mais du tere kii atte atte moom kii atte dina atte parce que kii atte du topp ci mbedd mi daw di la wër danaan dossier bi la war a atte tey léegi bu fekkente ne nit ki ñëwul dañu ne atte nañu ko ci gannaawam moom mooy contumace waaye nag dafa am ay daan yu mu àndal mooy que comme yow mënoon ngaa ñëw te ñëwuloo mënoon ngaa wax ne dama feebar dama accidenté voilà kayit yaa ngi nii donc nañu euh, renvoyé waat affaire bi léegi kooku atte li mu atte ba pare day sukkandiku ci li nga xamante ne moom la am ci élément enquête yi ki mu déglu ci procès bi aussi mu jàkkaarloo ak yow loolu la ko wax léegi aussi décision ba muy jël yow dootoo mën nag fa nga nekkoon nga xëy suba teel ne ah non bu ma fa nekkoon du demee noonu donc d'accord non dootoo mën a def appel loolu moo graaw ci affaire contumace. ñu ngi naan mënoo def appel mais puisque mën nga constituer comme un prisonnier après on va on va refaire le procès. mooy beneen étape bi maanaam bu ñu nee léegi daan nañ la munoo def appel daan nañ la par exemple kaw Ousmane Sonko deux ans Ousmane mun naa toog ba mu neex ko changer euh, doxalin mu ne boo ok gars yi man nangu naa deux ans bi léegi maanaam dafa acquiescer. ci possibilité boobu noonu. am na possibilité nangu am na possibilité ne li ngeen ma àtte pour deux ans. d'accord naa ko nangu naa ngeen condamné ma à deux ans léegi nag day dem ñu tëj ko mu tëdd deux ans yi léegi bu demee ne dafay ñëw nag léegi pour contester deux ans yi def naa da ngeen maa woowoon ñëw ma léegi ñëw naa ñëwal naa sama bopp nekkul ne dama nangu deux ans yi de mais damaa ñëwal sama bopp bu ma ñëwalee sama bopp yoon daf may may ñu annuler li nga xamante ne daanoon nañ ma ko léegi nag ñu dem ci kanamu yoon recommencer waat procès bi am na droit am na droit boobu noonu mun na ko def. boobu noonu ñu may wax ni vraiment sunu temps bu ñu impartiroon professeur jeex na tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk dara dara desu si naa wax may mu ba temps je pense que parce que war cee gën mën a mënoon ci gën a mën a xuus xuus jàll donc professeur je pense que le temps est fini donc ñu jox la kàddu gi bu fekkee dangay ngay clôturer rek def benn récap ñu doog a ñu doog a tëj waaw comme lu toujours bu ñuy wax rek dañuy wax loo xamante ne moom méngoo ak jamono il faudrait que maintenant ñëpp ñi nga xamante ni dañu am yéene ci réew mi parce que wax naa ci suñu interview bu passé je crois benn bu ñu defoon ma ne la bu amee benn dénominateur commun lépp loo xamante ne moom la politicien yëpp bokk mooy yéene bu rafet bi ñu yéene réew mi cest à que koo ci politicien yi yéene bu rafet la am ci réew mi léegi ñoom nag nañu jublu ci loolu ay xeexu troisième mandat nekkul programme ay xeex lii nekkul programme même le dossier Ousmane ko nekkul programme il faut que nit ñi bind ay programme bind programme yu nga xamante ne étudiant bi nga xamante ne mu ngi jàng actuellement nii di am ay jafe-jafe ñu mun ko wax ne ko lii ak lii ak lii ak lii ñun bu ñu ñëwee lii la ñuy doxale loolu mooy wàllu étudiant yi béykat bi ñu tontu ko keneen ak keneen ñu tontu ko nappkat bi ñu tontu ko loolu mooy programme mais bu ñu juumee bu ñu juumee ba bañ wax waxu programme topp ci waxu defante ay xeex yu kenn xamul. Euh, ñii nga xamante ne am nañu programme boo xamante ne ñu ngi koy exécuter programme bi am ay résultats te ñu ne dañ koo bëgg a yóbbu ba deux mille trente cinq moo xam kan mooy falu kan mooy euh, kan la ñuy présenter mais ñooñu am nañu programme boo xamante ne mun nañ cee sukkandiku pour ñu continuer gañe élection yi donc politicien bu bëggee gagner élection day wax nit ñi li mu leen naral. du leen wax amul benn mais loo wax nit kii fal ma ba pare ma wax la li ma bëgg a def cest à que il faut nga wax ko programme après léegi nag boo ko waxee programme mu mu doog ci boobu laa bëggoon wax beneen bi ci topp moom mooy vraiment jàmm jàmm jàmm jàmm jàmm jàmm leneen lu dul jàmm jàmm moo ko gën ci waxtu wii ñu toll nii am na ñoo xamante ne ba léegi seen dëy seen dëj jeexagul te mën na amaat mën na amaat mën na amaat parce que mu ngi am feneen ak feneen ak feneen donc il faut que nit ñi xam ne politiciens yi dañu leen di utiliser comme des munitions ñoom ñoo war a seet lan moo jar jaay sa bakkan ak lan moo jarul jaay sa bakkan ñoo yemale ko foofu donc beneen yoon incha allah. incha allah ba ba beneen yoon professeur ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité mais aussi ci per ci aussi bi nga xam ne moom nga moom nga waxee donc on était avec professeur Ibrahima Ndiaye juriste enseignant mais aussi. consultant moom la ñu dalaloon tey ci émission avocat waxtaan ak moom ci waaye loolu la loolu la donc ñu ngi remercier bu baax a baax a baax l'équipe technique bi nga xam ne moom la ñu àndaloon Issa Pouy Amadou Ndak Kébé ñu ngi koy remercier donc remercier nañ bu baax Khady Sarr aussi duñu ko fàtte moom ñu ngi koy remercier bu baax a baax di leen jox dig day incha allah lundi prochain encore une fois même chaîne même heure merci beaucoup